Baba Fall di candidat APR fële ci ginnaaw raay def génnam gu njëkk ci kanamu mobilisation bu takku ngir def meeting ci élection locale yi ba tax na kii di Abdoulaye Timbo ex maire et candidat la mairie ville de Pikine di xamal mbooloo mi nii. journée incha allah ans la kii di Abdoulaye Diop nekk ci nankaasi gi ba tax na tamit ki di Baba Fall di ko xamal ni. teg na si tamit waxaale li mu fasiyene yéene def fële ci gox bobu le te egali walé li di yene yi Macky Sall fële ci ginaaw ray tay fi ñu taxaw di tali bop pavage bi yàlla président Macky Sall mo fay ay nit yëkkati kër yi defal ñu ay tali ñu melni dëkk tabaxal ñu case des tout-petits école primaire CM maison de la femme ak mini SR defar ñu ñaari ñaari maison de la femme ay canal mitin gi door na nag ci biir local yi kon nag na ku nekk fas yéene doxal booram te bañ yee lii di fitna incha allah ki war a gagné le 23 janvier 2022 am victoire am ci jàmm ak salaam.